ñu dem ba gis nak mbirum Assane mbake ka taxawon ni moo taal samay keur ñu japp ci seigne Assane tejj ko ci ñenti weer ak fukki fan ak juroom même nit ki mo taxawat ne seigne Assane taalul samay keur ñu bëggona xam yebel googu manam lu tax lu tax état yabe ñu lolu ñu dem dem ba constater ni euh, japp seigne Assane gi dafa ñoo lu bare bare bare bare lo xam dañ ko ci ndax yónnee nañ ko ay yoon ay ndaw jox leen xaalis ne nañ ko jox buñ ko joxe mun leen man bëgguma duma jaay sama ngor te ñi ëpp ci ñi nga xamni ñom lañuy yabal ñuy dem ci mom di ko jënd ñoña ay mbacke mbacke lañ te ñing ci dëkk bi ñu dem ba melna Touba la taxoon seigne Touba sañcoon ko moy ak bokk ak yermande di dëkkub daw laq talibi daw ñew ci dafa melni talibi sax ñi ngi bëgg mer ci serigne si ndax doxinu serigne ci ta doxinu serigne soosu du serigne sepp du la ca xëpp sax ab minorité lañ di ab lobby bu ne ci biir dëkk bi téye dëkk bi lu leen neex def ngir seen intérêt personnel xaalis bu ñu leen di jox ñu def ci seen i poos te ku wax ñu ni amook taalibe di jël ay fausses informations di ko informer palais bi naan leen ku wax ñun la kii xamee su ko ci dëkk bi wala dëkku fi wala deful ni wala deful ni sëñ Assane mii taxaw nañ ne xamee su ko ci dëkk bi ñoom ñoo ñu naan sëñ Assane ci dëkk bi sëñ Assane amu fi bokk ñoom ñoo ñoo fi amuti bokk ndax a ngi nii ku say bokk na nga set ñu bëgg nag lii ci dëkk bi ñu waxtaane ko ndax fóotum biir la ñun amuñu kenn problème xuloo wuñu xeexuñu attaqué wuñ kenn alxuraan daf ni yaa daawud inna jaalnaaka xalifatan fi l ardi fahkum bayna naasi bil xaqi wala tattabi al hawa yow daawuda maa la def nga nekk sama représentant ci kaw suuf na nga atte dom aadama yi ci deug ta baña top sabakan ci atté ba daa di cay ni li kay la yakuna dawlatan bayna akhniya minkum ngir ngeen baña jël ak parlo ab fami téye mbir faté nit ñi ta loolu mom lañuy bëgg sétlu ci dëkk bi ñu leen di invité ñun ñom su nawlo yoy xamal leen ni même marche bi ñu déposer barki dembo c'est la troisième fois ñu rejeté dem nañ ba xam marche yi likoy rejeté ay mbacké mbacké ñu bokku ci ñun ñokoy rejeté lu di ko politiquer te loolu dafa war a jeex ci dëkk bi li dëkk bi nag ñoom nañ xam ne liñ fi am la fi ñëpp am nday lañ fi am ak i baay ak i mag ak i rakk ak i bàjjan ak i pénc moom la fi ñëpp am kon nag système bii dëkk bi di doxee ku leen wax ne dana wéy da di nax mënut a wéy te lu dul dëgg nag teel koo xam soppi ko ak nit a koy def ndax buur dégg buur buur buur buur